إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbaliko di ko ñaan mu jéggal na suñuy rëcc-rëcc bàkkaar di ko ñaan moom yàlla subhanahu wa taala mu gindiñu teg ñu ci yoonu sirat al mustaqim yoon bi nga xamee ni képp kum ci teg kooku texe na waaye képp kum seetaan ci maandu téem ba nga wàcc boobu yoon amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla ñu yàlla teg ci siraatal mustaqim ñuy seede ne amul benn buur bu yoyoo jàmm ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu koo bokkaale ak kenn ñuy seede ne suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la ndawam la tànneefam la yal nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal baba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénkaat suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala te ñu xam ni képp koo xamante ni ëllëg sa suuxu yaram safara moo koy lakk kooku de xamal ne lii di ragal yàlla moo nekkul woon ci yow yàlla ci yàlla musal mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci fadlu chehlu chaaban mooy ngëneel gi nekk ci weeru chaaban muy baraxlu gi ñu nekk muy weer woo xamee ni weer wu sës rëkk ci weeru mag bi ñuy wax weeru koor yàlla nañ ci yàlla eggale ak jàmm waaye it ba ko féete ginnaaw muy shahru rajab mu nekkoon ci diggante ñaari weer yu mag rajab bokk ci ashhurul xurum yi ramadan bokk ci weer wi nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala farataal ci jullit ni bu ñëwee ñu woor ko ñi nga xamante ni ñooy ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaroon ak ñi toppoon ci ñoom weer wi di weeru koor su ma san dëgmal ñu nekk ci shaaban gi lañ ko daan waajalee mooy jubluwaat ci téere alquran bi di nafaraat di toppaat alquran bi bal dañ daan bàyyi sax seeni activité yépp nekk ci alquran bi ngir waajale ko weeru màgg wi muy weeru koor ci ay naafile yiñ ci war di amal ak ci njàngum alquran dañ ci war di amal ak tafsir yi nga xamante ni dañ ko ci war di amal kon bokk na ci li nga xamante ni war nañ ko waajale weeru koor ci weeru ma mag wi ñu nekk muy weeru shaaban mooy di jàng alquranul karim di ko settantal ba tey it bokk na ci liñ ko daan waajale ñoom ci weer wii ci shaaban mooy dañ daan génne ci seen alal li ñuy wax ay zakat di ko dimbalee ñi nga xam ni ñooy ñi seen loxo jotul seeni ginnaaw ngir ñoom bu ñuy dugg ci weeru koor ñu mën cee dugg ak xel mu dal xel mu daj mu bokk ci ngëneel li nga xamante ne nag weer wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko màggale mooy lii di koor li tax mu ko daan waajalee koor mooy weeru mag wi ñu jëm weer la boo xamante ni balaa cee jàmm bi di dugg dafa war a tàggataat lii di ruuxam ci xeetu jaamu yàlla yi wante it fexe di fóotu ci bàkkaar ba buy dugg ci weeru koor gi fekk mu set wecc ci bàkkaar ndax lii di ay bàkkaar ay mooy yàlla dafay diisal jàmm bi ci xeetu jaamu yàlla yi mu war a def boo ñëwee ci xadisu usaamatu bnu zeyd radiallahu anhuma moom mu ngi nettali mu ni dafa waxoon yonente bi salaa sallam ni ko ya rasulullah lam araka tasuumu min ashuhuri ma tasuumu min shaaban qala dhaka shahru yaghfulu annaasu anhu anhu bayna rajabin wa ramadan wa huwa shahrun turfau fihi al-a'malu ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhib an yurfaa amali wa ana saimun usamatu bnu zeyd radiallahu anhuma yàlla ko yàlla yàlla yàlla gërëm moom ak wajuram dafa nettali mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam de la waxoon bis ni ko gisuma la ngay woor koor gu bari lool ci beneen weer bu dul weeru shaaban bi laaj googu noonu usaama laaj ko ngir moom kese waaye ngir xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko laajal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko weer la boo xamee ni jullit ni jaamu yàlla yi dañ ci sàggan sàgganu la ñuy xirtal la leen ci la leen di xirtalu ci weer wi mooy lu jëm ci waajalu weeru koor gi ci ban régime alimentaire lañ war a changer ndab yi war nañ jënd kaas yu bees war nañ jënd nangam ci wàccaayu lekk ak wàccaayu mel ni seen fit sax day dem ci weer moom bu ñëwee moom daanaka ñàkk a lekk ak ñàkk a naan gi fit na lay doon ci ñoom mu ni càggante googu la ñuy nekk ba daanaka du ñu xalaat sax jaamu yàlla yi ñu ci war a def te mu ni moom alayhi salaatu wasalaam ci weer wi ci la ñuy dajale lépp luy jëfu jaam bi bu mu jëfoon ci at wi war ko yéege ci kanamu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu jëfoon nag comme ni ko alayhi salaatu wa salaam waxee ci beneen xadis mu ni bépp altineeg alxamis dañuy yëkkati jëfu jaam yi di ko gaarale borom bi subhanahu wa taala mu ne nag li tax mu daan woor koor gu bari gi ci caabaan mooy dafa bëgg ay jëfam buñ koy yéegal mu ànd ak koor moom alayhi salaatu wasalaam mi yàlla jéggal ay bàkkaaram maa taqaddam min zanbik wa maa taaxar moom nee na dafa bëgg ay jëfam buy yéeg mu ànd ak koor ana ñun kon ak waajal lii di weeru koor ak it koor gi yonente bi salaa sallam daan def ci shaaban ñu war cee taxawee comme ni mu ko doon taxawee moom sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon usaama loolu moo tax man may woor koor gu bari gii ci shaaban ngir samay yëg buy yéeg ànd ak koor ñu ñëw ba tey ci beneen xadis boo xamante ni suñu yaay Aïcha moom moo ko nettali mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de gisu ko mu daan woor koor gu bari lool lu dul ci weeru saabaan lam ci daan woor daaw ko woor ci beneen weer bu dul saabaan mu ni lu dul weeru koor nga xam ne daka daan woor ba mu mat sëkk wante moom sallallahu alayhi wa sallam sax daanaka woor sax ba mu mat sëkk daana woor saabaan ba mu mat ba mu mat sëkk kaana yasuumu saabaan kullu mbokk yi lii di koor gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan woor ci saabaan génn njuumte rek moo ciy am boo xamante ni saa bu ñu tolle ci saabaan dégg-dégg bu ñuy am ci xadis bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fukkeelu fan beeg juróom bi la doon woor fekk nisf bi lañ wax nisf bi mooy la ko tàmbalee bu weeru saabaan teroo ba ba ngay egg ci fukkeelu fan ba ak juróom ndax ci fukkeelu fan ba ak juróom bi ci la ñuy yëkkati jëfu jàng dem gaaral ko borom bi subhanahu wa taala kon nga ni yow da ngay bàyyi ba bisu fukkeelu fan bi jot nga ne moom ngay woor ba sax indi ci ay xeetu jaamu yàlla ay guddi gi da nga ko war a naafila ay am na ay dog yoo ci war a def yooyu yëpp amul lenn lu ci sax ci xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nii la ñu war a dundalee Shaaban lu dul ni da daan woor comme ni ko xadis yi indee lu bëri ci Shaaban daana woor ba fi fukki fan ak juróom bi wala sax mu woor lu ko ëpp wala mu woor Shaaban kul la nii la ñëwee ci xadis bi waaye waxul ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam da daan bàyyi ci weer Shaaban bi ci fukkeel fan ba juróom bi kese mu daal koy woor أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ba ci umu salama radiyallahu anha mu ni kaana ahabu shuhur ila rasul sallallahu alayhi wa sallam an yasuuma shaaban bal kaana yasiluhu bi ramadan su ñëw umu salama nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ku bëggoon weer wi ñuy weeru weeru Shaaban la nee na moom sax daka daan jokkale ak weeru koor daka daan jokkale ak weeru koor mu ñëwaat mu ni ma ra'aytu rasul sallallahu alayhi wa sallam yasuumu shahrayni mutatabi'ayni illa Shaaban wa Ramadan nee na gisuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu woor ñaari weer yoo xam da ko woor takkale ko lu dul Shaaban ak Ramadan kon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci Shaaban mooy ak koor ngir waajalee ko weer bi nga xamante ni mooy shahru ramadan mubarak mbokk yi ndax fii ñu toll nii fukki fan yooyu ak juróom weesu na ñu woor ko wala weesuwul ñu ngi nii toll ci daanaka ci fukkeelu fan ak benn ci weeru shaaban dëgg mooy li ñuy wax ay yaamul biir yi muy les jours blancs ñu koy jàpp dimanche bii ñu jëm ak lundi ba ak mardi ba ñetti fan yoo xamante ni la ci yàlla di fay ci yeneen weer yi du ko soppeeku mooy ne képp ku woor ñetti fan ci ayyaamul biid yi ci weer wu nekk dinañ la fay yoolu ku woor weer wi yëpp kon weesoogul ci kenn ci ñun dimanche bii di ñëw lundi ba ba mardi ba nga woor ko ngir nga dabu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni say jëf bu mu koy yéegal mu ànd ak koor benn ñaareelu fursa bi mooy ñetti fan yi ngay woor yàlla da koy comptabiliser comme ku woor weeru Shaaban gi ma mat sëkk loolu yàlla defal ko kenn ku du xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala weer wi ñu dëgmal muy weeru koor yàlla nañ ci egg ak jàmm te lépp luñ ci séntu di ci màng ak yiw yàlla ñu yàlla dajale ak moom yàlla ñu yàlla fekk la weeru koor te weesu ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله